مكري يقول كلمة سونكو يا براكي إن في براكي وا يا براكي إن في إنه سونكو يا براكي إن في لول من داخل مشروعي ما خال أرتيكل بي دانج أرتيكل بي خالات أرتيكل بي مباخ أفهم منك داخل مطرب أفهم بي داخل نما مطرب بس كي كمين سونكو أ دينا وار un homme, deux femmes, wow. l'autre homme. man ami bon en tout cas bon Sénégal lañ nekk quoi peut-être c'est des rumeurs ça peut être ça. ah waaw de toute façon moi, man lu ma dina dinaa ko def parce que c'est mon ami. kan Sonko Sonko sama xarit la. sa xarit yow oui c'est mon ami. damay tu me l'as jamais dit. oui oui dama koy nëbb dina woo léegi léegi sama avocat sama avocat yi est à Paris. kan di ñëw sa man mon avocat sama avocat France la ne dinaa leen contacté, contacter xol di police du Sénégal vous walum voir le ak c'est le meilleur ñu top procès bi xol ndax lolu wala amul. wa lolu d'accord. amul Si ah? ah, amul boudé amna def ha, ah. amul boudé amul. def voilà parce que.

yow yow léegi nga ne sa xarit la ñëwaat nga ne sa nëba. waaw luy nëba wala moo nëba yow ba pare. man ngay wax nëba. c'est quoi nëba nëba mooy xaritu xarit. ii mooy mag rek. benn la benn nga tamit. Sénégal Sénégal dafa doy waar quoi. waaw waaw Sénégal man xam naa sama feebar man xam naa. xam naa Sénégal Sénégal dafa doy ba benn booy moo fi ñëwoon càndum xam nga ko. Thiatou sama xarit la dëkk sama xarit la benn jeune artiste waykat sama xarit la xamante ne kooku kooku ay kaldu rek la fi doon way mu bëgg mu produit ko daa way ba sama xarit bi dee mbote bi kan mbote bi yuuxu bi la dégg mu ne ma mais ku yuuxu bi mbote bi dee na mbote bi dee na Thiatou nga may wax de Thiatou way fii la toog ma ne ko acapella way mu acapella damaa tiit ba mu acapella sama mbote bi nekk ne mu ngi si biir di jooy ma dugg di nax mbote bi ndekete mbote bi kii li mu doon jooy waaw jaawale de càndum nekkul moo fi ñëwoon de càndum dafa mën a way ah day càndum mi ngay wax dafa mën a way xam naa ko man xam naa ko damay fréquenté sama xarit la est-ce que kii ñëw mu boowul càndum non noonu lay demee ah noonu lay demee gayen bu xaw a njool la nii ñuul ñuul waaw waaw bàyyi karaw bi bari nii waaw mooy am xaw am leelu Sadio Mané bi fii leel waaw demi leer fii la ñëw toog ak a peraawal bu may acapella wal ay ngañ dem baak waale maata guy jël liis naa te guy ga sax liisut ba eh. tey ba tey guy ga liisut guy ga liisut ba pare mu pare foofu naan ma aatu réer na aatu ba mu feeñee du tey atu feeñ na aatu feeñ yaa gis aatu ah, ah, aatu nekk tey Sénégal li ñuy wax yëpp nekk da yaxe Yékini mbër moo nekkoon aatu Yaxya Jóob kan Yaxya Jóob Yékini meen waaw waxu ba la ngay daanee la aatu feeñ da ngaa fàtte wa aatu nii lañ doon toogee ni ñuy toogee. si si si sama xarit la. aatu ñoom seen famille samay xarit lañ. aatu mooy Yékini. waaw Yékini aatu Yékini sama xarit la. déedéet aatu mooy Yékini. wala moom mooy Yékini ak magu magu magu Yékini bi Yaxya sama xarit la Mansour Diop. man man man man Aminata Diop. man man man xamoon naa li taxoon man ma bàyyi la. booy mbaru yaraax bi. kan la Moussa Ndoye. maa koy may contact laaj ko. Moussa Ndoye. Moussa Ndoye sa combat mu woo ma téléphone woo ma géej gi jaraa quatre heures du ma koy may contact. waaw am na jël ba mu mujjee daan. boobu dama ko ko daanee entraînement ba mu sonn. dama ko daanee entraînement ba mu sonn. Ndoye nga wax de Ndoye. Ah, yow Ndoye di sama poulet. boo ko gisee nga laaj ko xaaral ma woo ko téléphone. waaw sama takk kii bi mu ngi ci biir. xaar sama iPhone bi xaaral ma woo

mu ne ma Moussa sangu. mooy yow nga jot waa Orange ñu yi nga naan ay ay Moussa Ndoye dafay sangu yow sa affaire yi nga war a bàyyi yow. xam nga Moussa Ndoye yow. waaye Moussa laaj laaj Moussa Ndoye nga war a laaj ndax xam na ma man. ah bon Moussa Ndoye mën nañoo bokk yaraatu du ma xam. Eh, sama sama boy la la. non yow yow da nga dëgër fit de yow. yow yow yaa dëgër fit yow wóor na waa léegi kaa ñu waxtaan quoi. kaa ñu waxtaan. yow. des fois doo jékki-jékki yow nga xoolaat sa bopp xam ne yow. waaw man suma ma damay xool sama boobu xam ne man maa ngi xaayal niveau. xaay xaat niveau mooy si kaw kaw. non je te de say fen quoi sa say fen. ah li ma lay wax ay fen. non ay fen la. non du fen yéen xamee woo leen fen ak ku leen di yokk xam-xam xanaa xamoo Sénégal du ngeen gaaw am xam-xam léegi nee naa la Sonko sama poulain la. am na ma dem taxawu ko nga ne ma xaw ma Sonko te Sonko. pour moo xam benn affaire maa ngi moom benn ban ñoo ko doon toog kalaat benn ban ñoo jàngandoo doon toog benn ban Sonko Sonko Moussa Ndoye premier combat am mbapat ah. mun naa moom ak kan la moom ak kii nu mu tudd ah, mu pare waaw mu pare foofu ñu jox ko koba mu daan koba ñu jox ko jay ba mu daanee jay xam nga gars yi jox yóbbu ko parc an boole ko César gaynde bu mag bi mu daan doy daam ko loosu César damb César ba loos bi dambee maa ko delloo loos bi moo kii waaw soo an parc baa ngi nii jege na soo bëggee ñu dem César ba ko mu daan doy daaneel loos bi damb maa ko jël ne nii loos bi xoola hmm, rakat yaa ko jubanti waaw jubanti ko booy man duma ko ndaw yow kay musul ndaw yow mooy ku am xam-xam wala ku am am xam mooy wax ak yow. kenn musulaa wax ne ku ndaw nga yow. waaw yow kan moo lay jaawale ku ndaw. yow non dama bëgg rek. dama bëgg non dama bëgg rek nga xam. dama bëgg rek parce que lii lu may dal dafa bari. waaw toog ak ay pour yokk leen pour jéem a jël foofu dara mais man su ma leen retéye booy ngeen perte. man li tax nga jël sama man moo metti fi mu toll nii de. non damaa toog trois jours gisuma la. waaw. ah mënoon nga ma bàyyi gaale nag. mënoon nga ma bàyyi gaale nag xaaral ma jëndi la. non mënoon nga ma bàyyi gaale rek mu toog ñu teg caa sa grand bi. kan sa grand bi caa ah ah bon mooy kooku mooy maa ko yóbbu pour dugal ko wër ko sonn nga ku ma ko dugal mu bay. ba léegi nii barki yàlla yóbbu naa ko sax pour dugal ko ak 15 saako kër yi bu ñuy weer bii. waaw pour ma jaay saako kër yi ku ma ko yóbbu ñu ne yii ba ci ci neexul jël de ku ma yóbbu pour dugal ko ñu bay boo koy xaw ma kon laa koy dugalee. kooku fan laa koy mën a dugalee. yow ngay booy ba tool yi instant xaw ma sax moo ko war a dugalee. kooku su ma ko yóbbu woon mooy ma mooy Mali benn dëkk bu tudd Kaay. Kaay bëri na ñu yóbbu moom. mais xam nga kan la ñu war a yóbbu Kaay yow. non man dem naa Kaay. non da nga fa war a dem dëkk fa nga toog nga noppal ñu quoi ñun ñu nekk si jàmm. xam nga baa ma dem sama dëkk rek. tàmba waaw yaa ngi ci biir senegal ba tey ba tey dañuy gën a am problème. ok amul su fekkee naa la. benn iPhone GP bi dina ko indi. kan nga commandé yow 31 31 pilis. oui ma merci. da ngay dugg. man gaale sax bu bu bu ma dimbali ma rek ngir yàlla yoon tamit. booy booy naa ma ñëw boo ma soxlaa kii ma rek woo ma dégg dégg nga. ok booy. baa booy. booy daal di nag aal bi yàgg na de kañ nga koy delloo li après naa ko delloo. waaw ah, gaawal boobu yàgg na nag. non dama sonn ci yow <laughs> yow doo te yàlla man tey maa wuti ay xarit ñu jigéen góor yi gaa yóbbu naan yarax man waa waa yarax duñ ma fi dàq comme ni ma waa Maris defoon enfin